marhaban enquête bu ñu ubbi ngir indi leeral ci anam yu astu soxna ñàkkee bakkanam ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga moom la mboolem yéene kaay xëyee ni ki tey jilee jooriñ bu ñu dënk wàllum wér-gu-yaram gi ak wàllum action sociale daat na ci ubbib l'enquête administrative dëmb ci talaata gi ginnaaw bu yéene yëpp fësale faatu ko astu soxna moome ñu jàpp ne ab càggante moo ko waraloon ginnaaw bu mu doon jéem a mucc yéene kaay source ànd nañu rapport ba kay daar nay wàdd démb ci ay xaaju guddi lañ ko jébbal jooriñ bu ñu dënk wàllum wér-gu-yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr direction de la la santé de la mère et de l'enfant ak chaire gynécologie bu université bu ndakaaru ñu amal boobule liggéey bu ñu sukkandikoo ci suñu natango yi laata ñuy jëbalee boobule rapport a Vox Populi daal di koy feelu dëggal xibaar bi ne ñu élément ñu njëkk jëmale ko ci enquête ya daal nañuy wàdd li ci teew moo di ñàkk jàppale ab doomi aadama bu nekk ci musiba ak càggante libération itam di xam ne ni enquête administrative bi daal nañu dëggal njombe li ndaxte ñaari mission d'enquête yi daal nañuy fësal ni ñàkkum yëgoo di maanaam manque de coordination ndem si yàlla si di astu soxna yéene kaay leen fa moom càmbar doxalinu bërëbu fajukaay fii ci Sénégal ne jafe-jafe gi kay ci biir système bi la ne ndaxte suñu naattango yi ñu nga xam ne nii fàttuk astu soxna mi nga xamet ne dafa choqué ñëpp ci biir réew mi defut lu dul delloowaat coow la nga xamet ne yàgg nañ koo nemmeeku ci mim réew jëmale ko ci ay bërëbu fajukaay ya nga xamet ne yëfu tey dong moo fay am ci joojule jamono yéene kaay faatuk soxna si di astu soxna système sanitaire bi daal abu coow lu tar moo ko topp fu mu toll nii bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi ndaxte ci jamono ja nga xamante ne waa alliance des syndicats autonomes de la santé ASAS ak ànd gësëm ñu ngee grève ngir sàkku ñu ubbi ay waxtaan ci seen diggante gouvernement bi ci seen wàllum peyor di maanaam seen système de rémunération ci joojule jamono itam la coow daal di juddu ci faatuk astu soxna ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga mi nga xamante ne jamono ji ñëpp moom la ñuy waxtaanee l'observateur jàngat ci jaar jaaru ndem si yàlla si di astu soxna ñu mu jàppee ni ab jàmbaar fàq tëdd la woon Walfadjri Quotidien daal di koy feelu ne faatu ko bii la soxna su jàmbaaree lu néew la ci jafe-jafe ya nga xamante ne feeñ nañu tey jur yi musiba ci bërëbu fajukaay yi ci wàllum négligence ndaxte faatam moom astu soxna dafa ñu rek daal di gën a yokku listu doomi aadama ya nga xamante ne dañuy ñakk seeni bakkan ci ay bërëbu fajukaay ci bu càggante yéene kaay la Quotidien ne ak nu mu mante demee daal faatuk astu soxna mi le daal ëpp na ba jéggi dayo suñu naatangooy la Quotidien ba tey di xamle ni faatuk astu soxna mi le ko baal kenn lenn rek moo ci des moo di ñu teg ay jéego ya nga xamante ne lu mel ni bañ fi amaat waaye nag mel na ni suñu naatanguy amuñ ci benn yaakaar li koy firndeel moo di ne Sénégal daal dafay mel ni ci ab coowal skandaal dong lay dox coow ci ab fan génn ci ndaxte ci lépp jëm ci wàllum prise en charge bi ci formation bi ñel bërëbu fajukaay yi yàgg nañ koo joytu waaye France daal di xëddan amut genn coppeeku buñ ci nemmeeku te loole bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi lenn rek moo tax ba mbir mi ëlbatiku moo di fexe ba suñu njiit ci seen bopp tàmbali di fajo ci mim réew ñu gën a fullaal ko fajkat yi gën a équipé bërëbu fajukaay yi ak gën a tàggat fajkat yi itam ngir ñu gën a xarañ jàngeen jëf